ahlan bikum yéen a ma waxoon ma tànnal leen kandidaa léegi mënatuma leen a tànnal faa xam problème pour tànn ndax seen candidat yi ñi bëgg a jiite réew mi fa bari ba jéggi dayoo lii la njiite réew mi Macky sàll wax ay farandorom APR ak ci seen ndaje men doon amal démb l'observateur moo ñu ko xamal yaaw fa ngay xool ndaje mu tàng jir moo fa xamoon démb fukki candidat ak benn ñoo toog ca kanam njiite réew Macky Sall ku nekk naan man la vox populi na ko bu ko fukki candidat yi fa bëri ba jéggi daayo l'observateur ne responsable benn bokk yaakaar yi ñoom fa ñoo am mbetteel gàcce ca la am démb Matar Cissé moom fa jóg gedd ndaje mi génn saal ba dem Mansour Faye goro njiitëra Macky Sall moom fa bàbbee ko ca làng ga rek ne ma ne tamit candidat laa fay samp sama ndënd njiitëra Macky Sall ne ko ah ah maa bañ Mansour doo fi nekkee candidat yéene kaay bi ne fi mu toll nii nag njiitëra Macky fa leen wax ne am ngeen ñetti fan pour waxtaan ñuy juboo rek ah fa ñoo dajaloo ñaari yoon te ba léegi mënuñoo juboo ba tànn kenn mu nekk seen candidat vox populi ne ñii kay njiit réew Macky Sall na ko tànnal ñu koo mi fa bëgg a aar candidat kim nar a tànn mooy Boun Abdallah Dionne moo tax fa wax Amadou Ba na ko yaag Abdoulaye Daouda Diallo faa bëgg ngeen signé xaatim ab charte ku nekk ci yéen wax ne su ma ko tànnu tamit keneen ku tànn fa topp ca gannaawam tribune yéene kaay ne ah njiit mi fay bañ gaayam yi fu mer wan ko ginnaaw Aly fay déglu njiitu réew Macky ci kan lay tànn ma ko waxee ca direct news Moustapha Diop noppi na ngir nekk candidat de maam booy jaawoo tamit pourtant mën naa xam dara de madame Awa Diop Mbacke ne man kenn gënumaa yee ci nekk candidat bokk naa ci njëkk APR te faa ko tas ci diaspora bi wal fajiri yéene kaay ne benn bokk yaakaar seen mbër mi nar a samp njaw des na aw xambinde yi fi sotteegudde enquête yéene kaay kaay ne faa ragal na nag fa mu nar a mujj du baax de léeg si ko yéen kaay ne juboo daal xamagut moom loolu moom xam naa ko candidature Mansour Faye bi nag moom fa bett ñu bëri démb kenn xalaatut ko woon njiitëra Macky Sall fa ñaawlu candidature yu bëri yëpp ba pare joxe exemple Fada Balde ak maître Aïssata Sall fan la ñuy mujj nag ak kan moo nar a nekk seen candidat li ci kanam raw li gët leer laa neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne coowal tata bus bi nga xam ne fañ kaa taaloon ba xam ñaar ca faatu gouvernement bu Sénégal fa leeral wax lépp la ca xam yaaw uh, fa ngay xool Abdou Karim Fofana yor seen kàddu fa joxe turu mbooleem ñi nga xam ne fa ñoo gaañu woon ca biir bis ba ñu ne déetewaay ñaar ña ca faatu xam nañ leen ba ñoom it joxe neen seen i tur vox populi na kenn ka Faatumata Binte Jàllo la tudd ñaar fukki at ak benn la am keneen ka Umu Kaltum Jàllo juróom-ñaari at la am l'observateur ne man faa dem reportage ca seen kër ay mag ak rakk leen la seen papa wax ak yëpp ak woote téléphone baak la leeral li leer la solo yéene kaay ba mu wax ko mooy fukki doomu aadama ak ñaar teg nañ leen loxo ci bis boobu ñu taxal njort na kaay ne hee faa bëgg ngeen def ndànk de mbiru tata bis boobu ñu kalaate ba léegi yëf a gudde ànd na gouvernement bi wax nañ ba pare waaye terewul lu jëm ci ñaar nit ña ca faatu seen identité yi yëf fa am fulu de fa lëndëm de ñu ne déete ña nga xam ne ñoo ca amoon ay gaañu-gaañu dëgg-dëgg ban hôpital lañ leen doon fajee ah ñoom am nañu wax dalal jàmm am nañu wax hôpital Thiaroye am nañu wax CTO wax yooyu fa wuutee ñu ne déete waay bàyyu ñaari xale jigéen ya ñu wax ne ñoo ca faatu yoro jàllo ay waxam fa am li ñuy wax incohérence yu xel nanguwut Abdou Karim Fofana lii daal jëfu terroriste la ak ay attanta libération ne Serigne Saliou Mbacké Touré di xale lu góor la nga xam ne moo faatu ca scooter ba foofu tamit ñaari wax lañ ca dégg yaaw fa ngay xool jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi fa wax na xale bu góor bi fa doon jéem a moytu ay jumtuwaayu gendarmerie léegi moto ba mujj saaraar mu daal di mbëkk faatu ñàkk bakkanam waaye njabootu xale bu góor bi fa ñoo weddi wax jooju <laughs> leer la neen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne état bu Sénégal fa xaayee mbokki Ousmane Sonko yi pour ñu mën a gis Ousmane Sonko seeti ko ca kaso ga turbine yéen kaay moo ñu ko xamal yéen kaay bi na loolu nag mooy salfaañe àq ak yelleefu Ousmane Sonko ndax kuñ tëj ci kaso ku ne say mbokk am nañ sañ-sañ ñëw seet si la critique yéen kaay Ousmane Sonko fi mu toll nii fa nekk ci geraw juróomi fan a ngi nii lekku naanu lépp ngir wane jaay doole giñ ko def ña bëgg ñu bàyyi leen ñoom it ñu génn kaso ci farandooru Ousmane Sonko yi ba tax ñoom it fa ñoo nekk ci geraw de la faim mooy Amidia Mateek ñoom faalaak yi ni mel le quotidien yéen teg loxo gi ñuy teg loxo nag di jàpp jegeñaale Ousmane Sonko yi ba léegi ma ngay wéy de <laughs> fa ngay xool Ousseyn Manga ma nga ca kaso ga mandat de dépôt Abbas Fall moom aw na yoonu ñàkk poste premier adjoint au ca mairie bu Ndakaaru gars fañ ko nar a remplacer benn soxna de Abdou Karim Fofana ne parti bii fi nekkoon ñu koy wax passif parti fitna ak féewaloo rekk la fi nekkee moo tax tas ko fa baax li baax nag mooy jàmm ci réewum Sénégal ak dal ba tax mouvement M10 te Samba Ndiaye jiite ko wax nañ ci tolluwaayu fitna politique ba am ci réew mi yaaw seetal ci l'évidence yéene kaay Samba Ndiaye fay sàkku ak dal yéene kaay moom fa ñoo xamal ne gouvernement bu Sénégal yàkk nañ lu mel ne xamee branco avocat tubaab bu Ousmane Sonko a yaaw fa ngay xool Abdou Karim Fofana nee na tudd turu branco sax ca seen point de presse ba jaaduwut ndax moom du dara Aïssata Tall Sall jëwriñ ji feelu ko yàkk branco kàddu yoo xam ne weñ wu ci dal dee su du côté jiyéen gouvernement bi kay ñoom lépp lañ wax bàyyi wuñ dara lii yéene kaay na ko fay dëggal li nga wax ndax Aïssata Tall Sall moom fa wax démb ne Sénégal noppi na ngir yónnee ay soldaaram ca réewum Niger bu fekkente ne CEDEAO fa soxla ay soldaar ngir dem xeex ak soldaar sa nangu nguur ga libération moom fa ñoo xamal ne Air Sénégal seen benn avion fa doon daw xil ngir waaj a naaw waaye fa toog ba yàgg rek mu feree na taxaw ñax ca nekkoon jàq yuuxoo ya ginnaaw ga kilifa yi dalal seen xel waaye terewul xam na ñoo xam ne fa ñoo génn avion ba de ne lii wóoratul li wérte wóor mooy clients yi Sénélec yi xam nañ lu leen naqari ci doxalinu woyofal ci wàllu courant bi gars yi fa ñoo wax ne léegi fa cher bés bi yéene kaay ko xamal la mu ñu xamal moom stade yéene kaay mooy gaynde yu jigéen yi Sénégal dem nañ final Mali léegi nag Nigéria moom lañ war a dajek final njiitu réew Macky Sall ñaax na gaynde yi rafetlu seen taxawaay hmm, waa ma ne yàlla na leen yàlla may coupe bi ngeen buqi Nigéria waaye Nigéria googu ma gis yàgg koo xam seen jigéen ñooñu é tiir trois fañ cee xaay fa ñoo mën a basket fu ñuy jaar ba mbuqi ko daal dana ma jaaxal waaye nag yàlla baax na abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér wóor aju ci réew mi ak ci bitim